Pape Cheikh Diallo jàkkaarloo na ak Oustaz Modou Fall ne ko damaa takk takk suuf te bugguma kenn ku ci wax bugguma itam kenn ku taxaw naan ma takk suuf dafa xaram waaw wala déet moom Pape Cheikh Diallo nee na ba nga ko njëkkee wax naan takk suuf dafa xaram damaa naroon a jukk ne runkum xeex ak yaw moom Pape Cheikh ma ngay njaay cekk Oustaz Modou Fall ci question bi nga xam ne ci guddik ajjuma ga la ko daal di laaj di ko xamal ni ko ndax takk suuf lu dagan la Oustaz ne leen takk suuf daganul baaxul gënul te itamit nag képp koo xam ne am nga yéene def ko tegaat ko fi suuf Pape Cheikh Diallo ci lay insisté ne ko man de takk naa takkub suuf waaye duma ci xeex ak kenn en tout cas daal def naa ko te kenn jigu ko kenn tinul tey tamit nag maa nga ca dama ciy gën a sixin Youssou Madjiguène Ndour le roi di ma lax jëf na jëf ju rafet benn jaaykatu was la daal di digoon un million ca grand bal ba mu doon amal dafa doon def li ñuy tuddee balance waaja fekk ko foofule Youssou Ndour ne ko dina la may benn million ngir mën laa dimbali ci sab liggéey dinaa la may benn million ngir gën laa soññ nga gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom nga nekk muy liggéey bi ngay liggéey yi bañ a xool leneen lu dul gëm sa bopp rek bis dina ñëw nga daal di àgg fa nga war a àgg moom Youssouma Jigéen Ndour jëfee na waxam joojule ginnaaw bu mu ko defee nag moom jaaykatu wax bi di xamal sénégalais yi ne leen maa ngi sant sa ak di gërëm ak di ñaanal Youssouma Jigéen Ndour di ko xamal ne ko koppar yi jot naa ci ci jàmm ak salaam maa ngi koy sant bu baax a baax tey sàkku ci képp kuy sénégalais vidéo bi boo ko jotee na nga ko partagé ngir ñëpp mën cee jot ñëpp mën a xam ne itam Youssouma Jigéen Ndour Jack Lel.